mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV monsieur le ministre uh, yow laay jox yóbbante bi nuyu la nga nuyul ma mboolem autorité yi nga xam ne nekk nañ fi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di nuyu président association yi fi nekk yépp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di wax si non des président Djibi Wade waroon koo wax mais yaram bi dafa xaw a sutante moo tax mu yëg ñëw pour wax la ko euh, monsieur le ministre man dimbal lekk laay wax parce que bi ma président nommé lauréat Ndioum dama ne ko danaa defar élevage danaa defar ay jeunes danaa leen dimbali danaa leen jox soo xoolee jox naa ay xar lu ëpp ay trois cent personnes jox naa leen ay xar ñii jox naa leen ñu liggéey ba am ci ay kër te ci location lañ nekkoon man nag ma lay ñaan ndax dafa am loo xam ne dama ko fee gisoon bu njëkk te léegi gisatuma ko ci ministre yi parce que dañ doon def foire bu toll nii ñu ñëw ñu ñuy may ay cinquante tonnes ripaas ñu koy jël di ko seddale éleveurs yi ñu ci dundal seeni xar ñu dem ba léegi ay jamono danañ gis ministre ñëw wax dem ñu toog ba ci yàgg gisatuñu ministre ñu ñëwaat ba gis la ngay ñëw parce que wax dëgg yàlla euh, bi abukan organisé laa la njëkk a gis te gis bi dañ see kontaanoon booba parce que da ngay doog a toog ñëw seet si ñu te ñun ku ñu yëg danañ la yëg ku ñu yëg danañ la yëg parce que man bi ma demee euh, Ndioum di jël bi ma gendarme yi di wax ne da ngay dem doo wax ba ma demee si Macky dama ne ko neel ñee ñu bàyyi ma parce man mënumaa jóge Dakar ñëw ba fii te duma la wax sama soxla soxla boobu lañ lay wax liñ lay wax nag mooy man dafa am benn propos boo xam ne dama ko waxoon bu fekkee dem na ba nga xam ne lu bari munuñ munuñu munul leen ñu ko dimbali dañoo bëgg a ñaan la ci seen budget ngeen utal ñu ci président association yi fi nekk yépp ku ci nekk su période tabaski jotatee nga utal ñu association président association bu si nekk nga jox ko lu mat ñaar fukki xar yu jigéen wala fanweeri xar yu jigéen ñun am nañ ay xar yu góor yu baax léegi yoo ñooñu boo leen joxee ñu commencé produit association bi dana leen dimbale ba pare euh, euh, période tabaski bu jotee danañ la dimbale pour wàññil la xar yi nga xam ne da ngeen koy importer di ko indi man looloo taxoon ma ne naa leen woo wax leen loolu ñun am nañ ak xel am nañ ay xalaat yoo xam ne mën nañoo def pour élevage Sénégal jëm kanam waaye nag buñ ñu munta dimbalee day xaw a jafe si ñun parce que ñun boo xoolee man mooy yi may def yëpp man maa gën tey jii damay def heure bu ma feralee xar bu nekk ay 30 xar la danaa jël lu mat ay 7 wala 8 mayee ko ñoo xam ne ëllëg mën nañ see am dara looloo taxoon naa leen woo rek wax dëgg jërëjëf mooy télé bi bégal sama askan